bokk bitim réew bokk région de Diourbel waaye bokk département Mbacké noo ngi leen di nuyu ci turu confédération internationale des migrants euh, sénégalais ci turu président bi di Serigne daam Ndiaye muy jëm ji taxaw ñu dégg ko gën ko xam ci Dame labul Matlabul Fawzeyni bisub tey bii nag li ko tax a jóg mooy euh, Nations Unies dafa tànn bis bi muy fukki fan ak juróom ci décembre mu jagleel ko tukki kër yi Eh, nu gis ne nag booba ba tey ñi nekk di waaj di candidat tukkikat war a dem ci bitim réew ak ñi doon tukki ba ñëw te sonn lool ak ñiy tukki ba léegi toogaguñu it jafe-jafe yaa ngi bari lool tey ji tey ji la gën a bari kon bis bi ñun dañ ko def bisu bisub ñaan defe ko fii ci Daaru Xudóos muy bisub ñaan ñaanal sunu bokki Sénégal yi nga xam ne faatu nañu ci géej gi mu mel ne tey ji Océan Atlantique dafa nekk geneen bàq ya ñooñu di loru nu ñaanal leen moo tax nu tàmbalee jàng fukki euh, euh, kaamil alquran ak benn yooyu dañ leen ko jagleel ngir sans borom bi jéggal leen yërëm leen tàbbali na jëna waaye itam nu waxtaan war a waxtaane ci Sénégal ak lii nga xam moom mooy tudd immigration ñuy génn di dem bitim réew nan la ñuy def ba gone seen bopp mën a am luñ jàpp mën a am luñ liggéeyee ndax bàyyil dara jàppal ci dara lay war a doon mooy war a doon bàyyil dara bu déew tuura jàppal ci dara mooy doon sant wa koy war a téye te loolu gis na ne gone yi amuñu loolu ba tax na ñu ngi gaañ seen bopp di dee ci ci ci ci ci géej gi. appel bii ni def nag dañ koy def ci ñetti nit ba ci jëkk mooy parents yi mooy waajur yi nga xam ne ñoo jur xale yi nañ leen jàngal nañ leen yar nañ leen tete nañ jàng ay métier ba mën a am lu ñu mën a suturloo bu ko buñ ko deful bu ñu leen bëggee tey ci géej itam daañu dem ci géej gi te nañ leen bayee xas di leen toroxal ba tax ñu xaj ci seen biir kër yi bay dem ci biir géej gi waaye état yi nga xam ne itam ñoom ñooy jur ñooñu ñu jër ñu dénk leen alali réew yi nañu waxtaan ak émigré yi maanaam ba maanaam ñu mën a organiser wu ba génn munta ñàkk waaye bu ñu demetee duñu loolu ci àll bi loolu itam munta ñàkk loolu waaye émigré yi seen bopp itam maanaam nañu bàyyi xel ci ne tasaaroo munta indi doo muntanta doole nanu àndandoo nekk benn bopp ndax kat mënunoo jàpp ne ñetti million ngi sénégalais wala ñeenti million yoo xam ne ñi ngi dem ci bitim réew di dugal junniy milliards ak ñaar téeméeri milliards ci biir Sénégal ñooñu bu ñu leen sàggane ba kenn faalewu leen amuñ seen soxla maanaam féewaloo gi ak tasaaroo gi moo ko indi loolu itam nag noo ngi ñaan émigré seen bopp ñu boo nu booloo nekk benn nun ñëpp nan booloo nekk benn suñ ko defee daana ma na xeex émigration ndax Sénégal mii réew la moo xam ne nit ñi dañoo jóge war a jóge ci àll ba ñëw fi waaye waratuñoo jógee nun ci Sénégal di dem fenn ndax yàlla dénk nañu ndox mu suuf si yaatu dénk nañu ndox mu neex dénk nañu ay gono yu nango liggéey dénk nañu maanaam jant bu jant bu tàng jër yent yooyu ku ko boole waratoo am toroxte waratoo am jafe-jafe te itam dee gi dee ci géej gi bari na bari na ñoo xam tey jii boo demee frontière Espagne fa nga xam ne maanaam tubaab yi ñoom dañ fay toog ñoom di ko féexloo ay bàmmeeli sénégalais ay bàmmeeli africain ñoo fa nekk yoo xam ne amuñu tur amuñu sant dañuy wax ne rek kii daal dikk na ci géej gi rek dee na loolu leen bëgg mu dakk noo ngi tàllal loxo mboolem koo xam ne ab émigré nga moo xam yaa nga ñëw tukki doon nga tukki ba ñëw toog moo xam nga nekk ci biir tukki moo xam nga bëgg a waajal tukki noo nga lay tàllal loxo ci nu ànd toyaat tool yi delluwaat ci li nga xam ne mooy développement muy mbay ak càmm ak naataanga loolu jàpp na na buñ ko defee li nu bëgg ci Sénégal yépp daanu ko mën a daanu ko mën a am bu baax a baax tàllal loxo ñi nga xam ne itam ñoom lañ dénk réew mi ngeen ñu gungeenu ci loolu waaye daal dem laal nekkatul solution léegi li nu war a wax muy way woo xam ne mooy lan maanaam fu jom mooy tukki waaye fulla mooy ñibbisi nanu xam ne kon fulla jot na ci nu àndandoo mën a jéem a liggéey SEMS bu ñu nee migrant rek dañu jàppe ne doomu migrant bi baayu migrant bi nijaayu migrant bi bi famille migrant bi ci la kon sénégalais kenn de rëccul ndax réew mii di Sénégal foo fi dugg rek ci kër na nga fa fekk najaay ja di immigré wala baay bay immigré wala jarbaat bay immigré te ñi nga wala yaay ja waaye ñiy waaj bëgg a dem ci géej gi te demaguñu nun dañ leen a joxoñ loxo bëgg leen a former tubaab bi mënuñu noo ñàkk waaye nan leen nan nanu former wu fii nan organiser wu ba bu ñu jógatee di dem ni tubaab yi di def bay ñëw Sénégal bay mën a dem ci banque yi ñu di leen lebal ñu ñu di leen jox seen so sun suuf si ñoom ñu koy liggéeyee nañu organiser wu ñun en tant que migré émigré waaye nañ ko sukkandikoo ci sum si jàppale leen ba gone yi bañ a demati ci géej gi waaye nañ leen jox ay liggéey yu ma sëkk jàngal leen xam-xam leen waaye def si ñoon ay jom ak ak ak kersa ak ak ak pas-pas ba nga xam ne bu ñu demee ci ci bitim réew du ñu fàtte fa ñu nekk ci seen gannaaw kon loolu mooy doxinu sëm si te foofu la bëgg a daw jëm